ñuy wax ne ñoo ñu nekk ci ginnaaw buntu kër gi nañ ñu may tuuti dégloo ñu dégloo ndax ñi ngi bëgg a tàmbali jotaay bi jotaay bi nag day jotaayu tawféex waaye di jotaayu gàmm waaye di jotaayu ngëneel ki nga xamante ni mooy Cheikh Baye Ndiaye borom solution mi toog di guide spirituel di jàmbaar di koo xamante ni. liggéeyam ak xëyam ak gontam lépp seexal lislaam la at mu jot nag bu gàmm jotee ba yor-yor gi jàll xel yépp day dem ci Cheikh Baye Ndiaye li ko waral mooy ci lim ñuy woo waaye li ko waral mooy ci li nga xamante ni moom lañu tamal muy waxtaane kan mooy Cheikh lislaam Islam waaye waxtaanee nan la ab sëriñ war a mel loolu ci kanam tuuti danañ ci dugg ki nga xamante ni mooy Mohamed Keba dana ci ñëw. waaye waxtaane lan mooy ngëneeli gàmmu at mu jot nag Cheikh Baye Ndiaye dana joxe ab thème ñu wax ca thème boobu tënku ca ba kenn ku nekk booy ñibbi nga jël loolu di ko doxee ba déwén incha allah yàlla na ko ñëpp fekkee waaye ñu ngi jaar baax suñu bàyyi Cheikh Ibrahima Ndiaye ñu gën koo xam ci maam Sakho nga xamante ni mag bu nekkee ci li mu war a nekk day fital ay doomam yow ci lii rek nga war a ne. muy lan liggéeyal cheikh al muy lan bëgg cheikh al ngay koo xamante ni sa dund gi lépp da nga koo jox cheikh Ibrahim Niass sa xëy sa gont lépp liggéeyal cheikh al la loo jur tuddee nga ko loo am jox nga ko njabootam comme suñu maam Sakho maa ngi ñaan yàlla na yàlla guddal soo fan at mu jot rek bu Cheikh Baye Ndiaye tàntee ci saal bi yàlla nga toog ci wetam di ko feelu ñu dund lu bëree bare bëree bëri kon ñoo lay ziare baax a baax suñu maam maam Sakho ah, di ziare baax a baax ki nga xamante ni mooy sëriñ Thierno Ba doomu El Hadj Nourou Ba nga xamante ni digganteem ak Cheikh Baye Ndiaye yaakaar naa altine ak lënd la benn bis la bis yi xat na te jot amul temps amul waaye dana ma bu fekkoon benn jot rek la naa ko jox seex Baye Ndiaye te dem ñibbi loolu nag day wane ne kóllëre. goo am lanteel ak Cheikh Baye Ndiaye rek moo ko waral kon Cheikh Thierno Ba ñoo ngi ñaan yàlla yàlla guddal soo fan ci darajey Muhammad Rasulullah di jaare baax suñu xarit ki nga xamante ne mooy sëñ Moustapha mii sëñ Moustapha léppam boo ko xoolee rek xam ne kii xaritu Baye Ndiaye la ñoom ñaar dakaar ñoom ñaar fu ne ba tey jii ñoom ñaar Kaolack ànd bu yàgg nag dëgg la wala foo ko wax waaye wax ja fiir na ngeen ci kon Cheikh Moustapha yàlla yàlla guddal soo fan ci darajee Muhammad bu ñu fi nekkee di lim yaakaar naa jotaay bi day gën a yaatu te mbir mi ku ne xam na ne ci gàmm lañ nekk yitte yi bëri na te soxla yi bëri na kon duñ fi nekk di xóotal di yaatal ki nga xamante ni mooy jëmm ji woote muy Cheikh Baye Ndiaye nga xamante ni jom rek la feesee parce que lii jom la jom weesuwul la nga defoon daaw nga fexe ba li nga def ren gën koo baax te moom xam na ne sant na waaye xam na ne yokk na ndax la in sakartum laazindannakum ku sant yàlla dolli la lii ba nga koy njëkk a def ñi ñëwoon gis nañ na mbir mi tolloon waaye ba nga tollantee ña ñëwaat xam nañ fa mbir mi toll bi nga ko tollantewaatee ñi ñëwaat xam nañ fa mbir yi toll li ma naan kala ko kaleen ko ñoom ñëpp kileen ko Baye Ndiaye moo ko ko kon yàlla la yàlla defal jàmm yàlla musal la ci owalaw kon dañuy jox kàddu gi nga xamante ni mooy Cheikh Mohamed Keba mu waxtaanal ñu ngëneeli gàmm waaye waxtaanal ci nan la sëriñ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 maliki yawmi ddiini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iinu ihdina siraata almustaqiim siraata alladiina an'amta alayhim ghayri almaghduubi alayhim wala ddaalliin aamiin لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa habibina muhammad ibn abdullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha al axawaat ayyuha al abaa wal ummahaat nuhayyikum taxiyatan mubaaraka ala wahiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ci kenn ku ci turam ak santam ginnaaw bi sant yàlla di jiital nuyoo bi ci ki nga xamante ne moo ñu dajale fii tey ginnaaw bi nga xamante ne bés bu sell bi ñu ngi ci mi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa ñu ànd ci ki nga xamante ne mooy Cheikh Ba Ndiaye borom solution al murshid rohani guide spirituel ambassador of peace and love ginnaaw bi ñu nuyoo di nuyu sunu waajur bi nga xamante ne lépp moom la mu nekk suñ côté nii ñu xam bu baax te ràññee ko muy Cheikh Ibrahim Ndiaye sëñ bi ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar di la ko sa wàccuwaay bu ñu leen nuyoo nuyu nañ ñëpp tey nag ñu ngi dajaloo fii nii ci turu Cheikh Ibrahim Ndiaye borom solution waaye di amal ay kàddu yu gàtt yu ndaw yoo xamante ne ñu ngi ko bëgg a jaadale jëmale ko ci lu jëm ci actualité jamono ji ak lépp loo xamante ne gis nañ ko moom Cheikh Ibrahim Ndiaye. mu ci yëngatu ci tànk sëriñ ñu bëgg a xam carrément ni ñi xamal leen ne lim ne loo rekkee sëriñ lim ne loo rekkee sëriñ pour ñu ñëpp ñu dégg ko ndax xamandoo ko ñu ñu fi toog nii yëpp nag alif ba yaa na sëriñ moo koo xamante ne tee jii nii soxlawuñ la sax ne ci kurus kase sax dara parce que balaa sëriñ dara xew da ngaa war am ba nga nekk koo xamante ne ku yàlla cëre nga am nangu-nangu ci pays yàlla bi. te loolu yaakaar naa ñun ñu toog fi nii yëpp am na ñoo xamante ne xamuñ leen ci aadama xamuñ leen ci xawaa waaye am na fu ñu jaar ak yow ba tax ñu toog mu nekk nuur goo xamante ne tibbee na ci moom ñëwaat ci xalaa nuur dajaloo ci mboolee mi ñu toog fii nii yëpp kon sëriñ bi loolu rek mooy li nga xamante ne tey jii nii buñ ci tegoo ci serin yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci li ñu war a ne bu leelu weesoo ñu li nga xamante ne mooy ci ñëwaat ci thème bi nga xamante ne moo di ab sëriñ gis nañ ci li nga xamante ne mooy xidma bi nga xamante ne mi ngi koy defal sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim ci année bu nekk ñu ngi koy gis yaakaar naa sax sama mbokk wax na ko ndolla gi nga xamante ne gis nañ ko chaque année mu ci ànd sëriñam yaa ngi dégg ak ay waajuram ak ay mbokkam yëpp di ko def fii nii ci këram ak ay taalibeem te loolu kenn du ko naatable gis nañ fi daaw bañ ko dalee ba léegi daaw daaw jéeg daawaat jéeg ak at yu ko jiitu yëpp ci loo xamante ne tey jii nii ñëpp xam na ne ndolla am na ci kon nag da nga sant yàlla baax baax te di ko wax na ko ci lim nekk rek ci loolu la ñëpp war a nekk mu nekk nit koo xamante ne macha allah fa tabarakallahu ahsanul xaalixiina ñun ñëpp gërëm nañ ko ci tànk yi nga xamante ne moom lay def defloo ci réew mi moo gëm ci cadre social ak ci bon esprit parce que Cheikh Baye mi ngi ci ndaw ñi ci seen xel yi yaa ngi dégg di di ci dugal yàlla du ci dugal li nga xamante ne mooy gëmloo ndaw ñi ne leen kenn yéen da ngeen a tekk dara sabre otage ngeen dépendre ci quiconque chaque jour mi ngi dimbale ndaw ñi pour ñu xamante ne dañoo war a nekk dara te dépendre ci kenn yaa ngi dégg ci social li nga xamante ne chaque jour mi ngi dimbali nit ñi dërëm bu am ñaar dërëm bu am lépp loo am rek mi ngi ko booloo ak nit ñi kon sëriñ bi yaakaar naa ne luñ fi du ci dus nag bi yëpp xaju cin li te néew lépp loo xamante ne rek mi ngi ci yow rek wallahi alazim ñu xam ne euh, mënuñ ko wax parce que li na ci yow yëpp buñ toogee fii suba ngoon jot di ko wax kon waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ana soppe Muhammadu Rasulullah ku fi gën a bëgg yoneel defal ni say baaraam. ma des ca njëg ca saam. yaa Rasulullah ma way. kañ naa la ku ñu bind yaa gën. yaa leen gën. yaa leen ma ne ana soppey muhammadu rasulullah ye nabi way nabi kañ laa abdallah yey baay ja amina mooy yaay ja abdou mutalib mooy maam ja wowoy kenn du yaa rasulullah man de way kañ naa ana soppey muhammadu rasulullahi def leen nii seen baaraam borom gàmmu gi laay wayal cheikh al islam na yoneen ana soppey baay ñaas samba cooro faal samba mi ci bayti kellu mam baay ñaas ana waa kër baay def leen nii seen baaraam tey ma way cheikh al islam borom gàmmu gi ma nga Medina man naa la mam baay ñaas mawlaana cheikh al islam mawlaana yaay mawlaana mawlaana mawlaana nga doyloo cheikh Baye Ndiaye cheikh al islam nga doyloo cheikh Baye Ndiaye cheikh al islam nga wóolu cheikh Baye Ndiaye cheikh al islam la nga gëm xanaa yëguloo ne Baye Niass ku ko bëgg bul góob bul garta foo tollu yi laax yow sa waajooje dimbali na waa Angleterre sa waaja dimbali na waa Nigeria sa waajooje dimbali na waa Angleterre aw say ña naan ala ala baay demal Ghana baa nga dem Burkina baa nga dem Nigeria baa nga dem Côte d'Ivoire ña nga naanooy ala ala baay mam Sakho sa waaja Cheikh Islam mam Sakho sa waaji Cheikh Islam tuturam doy na ma koom ndax li may wax moo ko moom man de bàkk naa ko man ji naa ko ana soppey Baay Ñas def leen li seen baaraam mbooloo mi ku fi gën a bëgg seexal lislaam waxal jërëjëfe Baay mbooloo mi ku fi gën a bëgg seexal lislaam waxal jërëjëfe Baay jërëjëfe Baay bu ko réew mi saxoo woon réew mi dafay neex réew mi dafay naat réew mi dafay yiw Baay Ñas toj na bitim réew Baay Ñas Mawlaana mi may wayal mam sa xusa waa jooje ku ànd moom raw nga ku ànd moom da doon noble si Moustapha sa waaji ku ànd ak moom da doon garme Baay Ñas laay wayal Baay Baaba Lamin Baay Ñas maami Cheikh maaye man de bakk naa ko Cheikh Baay Njaay sa waaji Cerno Nuuru Ba xanaa yëguloo ne sa waaji ku ànd moom raw nga Cheikh Lislaam mi may way Samba Coro Faal Samba mi ci bayti way na Muhammadu Rasulullaahi nabi yaa leen gën yonen yaa leen man ku ñu bind moo ko gën Cerno Nuru Ba sa waaji Cheikh Baye Ndiaye bàkk naa la ji naa yaa di teraanga ku la am de sant na bay ya gaayu faj aajo yaay ka ca gaaw loo wax sa borom mu ne waaw Ndiaye da ngay dimbalee ci lu gaaw Ndiaye tur tur doy dama koom borom kurus gaa ngi nii Ndiaye boo ko mu naan la Mawlaana defar na bii waaye Mawlaana defal na bitim réew li woo tax at mu jot ci gàmmu gi nga koy sargal Cheikh Baye Ndiaye sa waa kii ku ànd ak moom raw ana soppee Muhammad Rasulullaay maa ngi ñaan ku bëgg yonent bi jugal taxaw bu tàggoo ki bàkkaar ku ci jug taxaw yëlbu yàlla nga dellu si déwén maa ngi ñaan ñëpp jug taxaw yëlbu màggal Muhammad Rasulullaay kenn du yaa Rasulullaay nabi bàkk naa la nabi way naa la man de naa la am baam jeex la ca am seexal lislaam moo ca gën ay sa waaji Cheikh Baye Ndiaye ki ngay sant at mu jot kooku ku ko sant yokku nga ku ko sant raw nga Cheikh Moustapha sa turandoo Muhammadu Rasulullahi nabilaayi way nabilaayi kañ nabilaayi ji ne kenn du yaa Rasulullahi man bàkk naa la njol ma ki yaa leen gën muhammadu rasulullahi man de bëgg naa ko ku bëgg muhammadu rasulullahi kenn du soppee nabi soo ko soppee raw nga soo ko bëggee raw nga soo ko wóoloo yow raw nga Cheikh Baye Ndiaye sa sang boobee kenn muhammadu rasulullahi nabi way naa la man de kañ naa la man de naa la mande de naa la allah allah bàyyi mawlaana mawlaana mawlaana cheikh al allah allah bàyyi bàyyi sagal na réew mi bàyyi sagal na meneen réew ndaw ñu naroon na sànq bàyyi gindi nga leen kenn du allah allah bàyyi ñaas xam nga cheikh Baye Ndiaye yàlla la yàlla defal jàmm te jii jotaay bi dalay leer na am na koo xamante ni yàlla bindaloon na ko bàkkaar yu bari waaye teew gi mu teew jotaay bi moo tax yàlla effacé ay bàkkaaram te gis nga boo teewee ci jotaay boo xamante ni jotaay yàlla suñu borom la bépp nooyi boo fa nooyi di ko dund bénéfice la ci sag dund kon fii ku fi nooyi waat rek jàppal ne bénéfice la bu ñu dolli ci sa dund te loo fi lépp ngëneel la ndax ki waral jotaay bi ak ki ñuy defal jotaay bi moo ko waral muhammadu rasulullahi ak a sopp seex al islaam ak a wóolu seex al islaam samba joro faale samba mi ci béyte maam saaxo way naa Samba Coro Faale Njaay maam Sakho mi may wayal ak bëgg baay ak wóolu baayoo ak doyloo baay ak wóolu baay yàlla la yàlla defal jàmm yàlla nga gudd fan Cheikh Baye Ndiaye sa waajur wii di maam Sakho teraanga ji mu jëflanteeg man yàgg na koo def ba ma fi ñëwee daaw géej daaw ak ren te bëgg fee ñëwaat déwén tamit incha allah daaw dafa yëkkati teraanga yu bëri terale ma ko yëkkati parfum yu cher jox ma ko ba léegi parfum ba nangu moomu jeex kon suñu maam Sakho suñu bàyyi yàlla la yàlla defal jàmm nga gudd fan Baye Ndiaye daf koy wax Cheikh Baye Ndiaye boo ko nee kuy sa idole mun la awma idole benn idole laa am muy sama waajuru góor te yaakaar naa ne yow mi nga xamante ni yow la teg ci bëtam ngay idolam di royukaayam looloo mën mënta juum danaan la man benn idole rek laa am benn royukaay laa am muy sama baay te doom ju am fulla nag sagoo sa baay rawatina boo amee baay bu baax baay bu gën baay boo xamante ni ab mu xaddam la kon maam Sakho yàlla na yàlla defal jàmmu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokku lislaam gi nga xamante ni ñoo fi teew fii ni yëpp dara dajalewu ñi fii lu bëgg yàlla ak yonantu bi maa ngi nuyu ku ci nekk su turam ak santam di leen ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di teg si nuyoo bi xalifatu général faydatu tijaniya cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass gannaaw buñ ko ziyaara ñi ngi wàcc si di ziyaara sunu woy jur bu góor cheikh Ibrahim Ndiaye mu ngi nii toog sunu wet lii yàgg na koo def tey cheikh Baye Ndiaye nu mu mënta mel bu amee kenn ku ko gis di ko bëgg walla di am xememteef wala dara ci moom sunu liggéey sunu wayjur la di xamal ndaw ñi ne leen mbir mi liggéeyal say wayjur la ak am seeni barke am seeni ñaan ndax lii lépp moom la nu mu nekkee moom ndaxte or balaa muy am njëriñ faaw ñu dugal ko si safara si lakk ko lakkaat ko bu génnee daal di jur njëriñ tey mën nañoo wax ne loolu moom moo ñu teg ci yoon boobu noonu duñ ko faral di ko bëril di ko wax ndaxte dafa am leneen lu muy nuru te ku nekk ci yoon di liggéey doo bëgg di gaawantu di santaate ndaxte lu sotti am boroom te heure bu nekk luñ koy ñaan rek ñu ngi ci yoon ay ndaw lañ dañuñ ba léegi ay xale yu ndaw lañ judduwuñ sax waaye yoon bi nga xamante ni moom moo ñu si nampatal rek teg ñi ci rek ñun ci loolu la bëgg di jaar xamuñ sax ba xam mi ngi baax na wala baaxut waaye bëgg lu baax la rek loolu yëpp moo fi dajale mbokk yi nga xamante ni ñëpp teew nañ fi ci kaw ba si suuf te dara waralu ko mooy dajee boo xamante ni dajee bëgg yàlla la ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ku gis mbokk yi at yi paase ci gannaaw am na nuñ daam taxawe mbir yi ci yeneenu anam di def ay social balaa ñuy dugg ci guddi gàmmu gi ren nag bañ fa tolloo dafa am ay tukki yoo xamante ni bett ñu lool muy ñaari tukki ba tax na yooyu yëpp tamit ci social bi la bokk ñu génn dëkk bi ba ñëwee dellu si alhamdulillah fekk mbiri cate lu bari xaju ci waaye di wax jaamu yàlla yi rek ku ci nekk daan na daam gis lañ daam daf daaw ak daawaati jeeg ak at ya ka weesu yàlla dafa daf benn mbir boo xamante nii li ñuy def sax léegi léegi duñ ko mën waaye dañ koy def par amour par mbëggeel ndaxte Baay Ñas radiyallahu taala anhu dafay wax ne laa yanaalu maa indana illa bil mahabbati wa sidq ñun lépp lu ñuy def dañ koy def si mahabba ak sidq loolu tey moo waral ñi am courage boobu noonu di ko def saay su nekk ndaxte mahabba lañ koy defee ak dëgg gu mat sëkk te duñ ci ànd ak benn triche malgré na danay métti lool ndax baaxoowuñ yoxu dana nekk si ay jamono yu tartar loolu moo waral nañ ko doon dafe sax social yi ren dafeewuñ ko waaye ànd ak loolu noonu yëpp doomu aadama sooy def mbir bu yàlla taxe ngay daf soo doxe tuuti dox jéego doxaat jéego nga gis ne kat mbir yi am na noo xamante ni ni mu waroon doxee doxeewul ko da ngay taxaw taxaw bi ngay taxaw nekkul ne da nga ragal fi nga jëm wala da nga xamut li ngay def man mi Cheikh ba Ndiaye lépp lu may def lu ma xam la lu ma maîtriser la ndaxte du ma ko defee sama bànneexu bakkan balaa may def dara dinaa am ñu ma ci waxtaanal waaye balaa may def dara dinaa ci waxtaanal ki nga xamante ni moom rek moo jara waxtaanal mooy sama ngegenaay loolu moo waral ren gi at gii sociale bi nga xamante ni moom lañ daam daf ñu bari gisuñ ko waaye nag am na beneen social tey moo teew si salle bii nii comme nu ngeen ko gisee lii du dara lekk la ak ay naan kase dañ koy lekk léegi suñ génnee fii léegi mu rees xaalis bi tamit nekku lu dul këyit dañ koy am rek am soxla rek dam taxaw ne lii lañ bëgg a jënd jënd ko mu jeex kon alal lii du alal jëriñu dara lu dul lii rek jëflante lu baax te jëflante bu baax ci bés yii la gën a rafetee si bés yii la gën a taaroo ndaxte kan lañ koy defal mooy rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xamante ni moom la bàyyi ña sa radiyallahu taala anhu wax laqad kaana xayra mursali qabla alwujudi al awali walam yakun min jëndali li aslina al muassali mooy rasulullahi sallallahu taala alayhi wa amoon na di nekk balaa yàlla di ko jox message bi pour mu indil ko jaamu yàlla yi qabla al wujudi al awali bi moo njëkk am gi yàlla amal kawnu bi mu tegaasi mi ne yonantu bi moom mooy aslul usuli mooy cosaanu cosaan yi kon loolu dañ ciy déggee na ñun doomu aadama yi bani aadama yi yëpp leer lañ bu fàqee jugee ko si yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam yonantu bi sallallahu taala wa sallam nekk leer fàqee si suñ borom bu tedd bi kon loolu rek moo tax ñu war koo màggal loolu rek moo tax bari nañ ay xiila xaala yuñ ciy dégg weddikat yi ak diingatkat yi ñoom loolu lañ baaxoo gàmm bu jotee rek dafay mel ni ñu jëfuur ñu baal ñu ko si kàddu yi dara waralu ko li may faral di wax rek ab taaliba dëgg dafa war a nangul sëriñam yonentu bi sallallahu taala alayhi wa mooy sëriñu sëriñ yëpp ki nga yaakaar kim yaakaar kooku noonu kim yaakaar yonentu bi sallallahu alayhi wa la yaakaar kon màggal yonentu bi farata la waajib la kon nu julli nekkee farata nu aji màkka nekkee farata ndaxte yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ñu indil yooyu est-ce que yonentu bi bu ñu indilu toon loolu danañ xam lan mooy njëriñu julli est-ce que yonentu bi suñu indilu toon loolu danañ xam lan mooy leeru islaam te islaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy imaan wal ihsaan loolu mooy dëgg-dëgg islaam ndaxte dafa fekkoon àdduna bi lëndëm ak tooñ bari fi yonent bi ñëw pour def mise à jour si àdduna bi mooy fekk mbonteef yi fi nekk te man mbonteef yooyu saay bu nekk mi ngi gën di yokk at at bu jot dafay am jamono bu jot dafay xew jamono ji la nit ñi gën a bon jamono ji la nit ñi gën a di rëjloo si àdduna di daw ci loo xamante ni dara jaru ko te dañoo war a daw si tawxiidu laa ilaha illa allah ndax Baye mi ngi wax naan sharia bi dara waralu ko lu dul yàlla ñi xam ko si sharia bi kese la nit a ngi julli di woor te fekk ne yàlla mi ngi koy rëbb nit mi ngi jàng alquran te alquran a ngi koy rëbb koo xam-xam ne alquran heure bu nekk mi ngi koy wax kon su ko defee duñ gàttal duñ guddal foofu ñi tënk jotaay bi rek ndax xam nañ ne jaamu yàlla yi njoobeen yeeg ñeneen ñi xiif nañ lool sax te bëgg nañoo dem jublu ji si wàllum xéewal gi waaye di wax gaay rek ñu ngi leen bégal ne duñ delloo sin tànk ginnaaw liñ nekk ñu ngi ndaxte liñ koy defee mooy almahabba wa sidq noonu lañ koy defee te loolu luñ gëm la nekkul lu ñuy tricher waaye nag soxla nañ ci ndimbal waaw soxla nañ ci ndimbal de dafa am benn boroom xam buy wax yaakaar na alhaaji baraam mu kër ma jibel moo koy wax mu ne kuñ dimbalee dana yeb ku ko mën fuuf ah baayam moo ko wax muy wax boo xam wax bu am solo la te dafa jotaat nit ñi di si def jàngat bu baax ndimbal nekkut alal rek lamb si poos kese ni soxla na ndimbalu xelaat soxla na ndimbalu logiciel soxla la yeneeni ndimbal ndaxte benn nit mënu dara loolu danañ ko bàyyee sunu waajur bu tedd bii nii incha allah xam naa moom danañu ñëw si loolu pour waxtaan nañu si loolu comme jotaay mel ni occasion la su ko defee ñi saafuwante xamee lu bees juddu si gàmm bu dul toon dara sax di toog di tagg yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ku nekk ci ñun rek xam na yonantu bi yonantu bi ku nekk xam na ne boo laajtee yonantu bi nu mu tudd ñee la Muhammad la fu juddoo ñee la Makka la ba mu gàddaay Makka fu mu jëm ñee la Medina la kon loolu ñëpp xam nañ ko léegi wax bi mooy leen yonantu bi li mu indi woon lan la loolu la ñu war a jàngal ndaw ñi loolu la ñu war a jàngal société bi te loolu nag rawatina si nouvelle génération bi ndax sëñ Mahi Al Khalifa daf koy wax nee na Sénégal dafa bëgg ay leader yu bees leader yu bees si économique leader yu bees si wàllu diina loolu tekkiwul ne way jureeg wala paa yi dañuy taxawee ne xale yi ñëw di doxal déedéet ndaxte dafa am loo xamante ni xale moo ko gën a mën mag mag lu mën mooy comme suñu waajur bii rek li muy def li ngeen gis si ñun rek moom moo ñuy puus bu jëree mu taxaw wax ñu lu garaaw ñu taxaw fee di fëtti fëtti di mer da koy daf loolu yëpp pour lan la pour rek ñi baax pour rek ñi jaar ci yoon ndaxte moom mooy nekk ci gannaaw lépp lu ngeen gis du ñun wax naa leen ne liggéey waajur la moo tax ndaw ñi ku ci nekk ñi ngi lay ñaax nga fexe liggéeyal say waajur waajur na ñaar nga ci am ba ñett mun na nekk sa waajur bu jigéen ak sa waajur bu góor am na beneen waajur moom waajuru maanaa la loolu moom moom la ñuy wax way jur sëriñ yi sëriñ dana taxaw taxawaayu way jur loolu moom beneen débat la xajut fii waaye Cheikh Baye daal borom solution the ambassador of peace and love ñu bëri nag dañuy wax borom solution bi di dingat borom solution bi nangam nangam yàlla rek mooy borom solution ñuy wax loolu xamuñ lu ñuy wax man lépp lu ma génnee di ko wax rek lu ma am isne la tëb ma tëb rek di ko wax dafa am fu ma ko jëlee di ko waxee sama lisaanal xaal nag moom may wax Euh, borom solution si xaqiqa la dafay dox ci yàlla ak yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Baay Ñas radiyallahu taala anhu loolu kenn mënu koo taxawee te taxawoo social social lan la yaa ngi jéem a di jëmban baax loolu kese la pour wan nit ñi message wan leen na leen kaay leen ñu baax loolu rek la loolu rek moo waral social bi du dara kaay ñu baax la tay bu ma sañoon tey képp koo xamante ni teew na fii bëgg naa mu koy participer ak man ci nu mu mënta doonee man lool bëgg naa ak te lu ma bëgg la nekk lu ma bañ de lu ma bëgg la ndaxte am na loo xamante ni lu juróomi nit mën benn nit mënu ko moo tax kon loolu maa ngi koy ñaax ñëpp ñu fi teew xam naa suñu wajur dana si ñëw gën see yaatal lii rek mbaax la bëggante ngir yàlla la moo tax ñu koy def def biñ koy def tamit rëccuwuñ ko indi nit ñi di leen wax fu nekk ne leen kaay leen ñu feete guddi yontu bi sallallahu alayhi wa sallam rëccuwuñ ko ñoom dégg daaj mi nu ko waxee jugee dakaar jël seeni oto paas ay paas yu cher daf si ay cent mille essence ñëw fii rek ngir guddi lan guddi lan guddi yontu bi sallallahu te loolu bàyyi moo ñu ko jàngal moo ñu xamal nan la ñu bëggee yonantu bi bëri na nag coow yu bëri ñii naan dangay ngay yàq ak da ngay nangam lii du yàq lii yonantu bi moo ko gën a méritoo képp koy gis ñun doomu aadama rek heure bu nekk dañuy toog di feete suñu suñu suñu indépendance jour bu ñu juddu rawatina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne di anniversaire la suñu bopp waruñ am beneen anniversaire bu du anniversaire yonent bi man de lii laa gëm ci lii laa nekk kenn mosuma gis may def sama anniversaire bopp ku ko mos a gis ah mosul am comme loolu ay message la bu leen jàpp ne Cheikh Baye Ndiaye bi nekkoon fii rek ab kii rek ma moo tax noo déedéet du loolu dafa am message boo xamante ni moom lañ bëgg képp kuy ndaw bëgg nañ ne meluñ dara waaye bëgg nañ ci luñ nekk képp koo xam sa ay am di jàmm lañ yiw bi nga xamante ni man dama koy def di ko sentir bëgg naa ñëpp am yiw boobu yiw nag nit nag mun na la koo yéene nag waaye yow yaa koy gën a yéenee sa bopp comme comme ñu ngi ci woo ñëpp Corna Seydou Nourou Ba ñu ngi lay gërëm sa teewaay rafet na du ma toog fi sax di la gërëm yow xam nga man xam naa lii rek mooy mission bi du leneen ñi xaritoo di damalante di dikkalante loolu mooy mission bi de instant bi nii drapeau bi si ndaw ñi la nekk jeunesse bi buñ demulantewut di dikkalantewut kon kan mooy demalante dikkalantewut hmm. te dañoo am rol boo xamante ni dañ koo war a jouer si faydu tijaani bii nii loolu nag laay ba tëxalee di wax li nga xamante ni Mouhamed Keba Mahmoud Ndiaye wax na ko sëriñ nan la war a mel ñu bari ñu ngi jël sëriñ di ko natt si juddu wala di ko natt lan si ay sant sëriñ nekkut foofu sëriñ heure bu nekk dama koy wax njub la istixaama ak leer la jub boobu képp koo xamante ni yaa ngi ci nekk wala di si jéem a nekk rek mën ngaa nekk sëriñ wax naa heure bu nekk dama koy wax sama discours dañ koy dégg dama ne bunt yëpp tëju na si nit bunt nubuwa moom moo tëju na nekk rasul tëj na jeex na nubuwa moo amatut ku nekk xam na ko waaye beneen bunt boo xamante ne mooy xutbu awliya mahdi yoog yeneen yooyu noonu yëpp jàppal ne comme xorom la bu ñu war a xoromee cin li rek lu ñu toggee nii doomu aadama bu nekk boo góorgóorloo rek mën nga koo nekk ñun na bëgguñ nekk yooyu yëpp lu ñu bëgg a nekk dëgg dëgg dëgg dëgg mooy nit koo xamante ni dafay nekk benn leader leader ci wàllu diina leader ci wàllu tariqa leader ci wàllu xaqiqa bi nan la ñuy dimbalee ndaw ñi ñu bokk jëmal sunu àdduna ci kanam ñu bokk ànd jëmale suñu mbir àllaaxira ndax nit tey sa àllaaxira tey nga koy liggéey balaa suba te ndaw nag moo ci gën a jekk bu fi ndaw toogee di xaar naan ba ay affaires yi gëm yàlla yi nii nangam nangam yi affaire tardé la soo demee ba am 60 di doog a jege yàlla sa jege yàlla googu amatu njëriñ ndax fi nga fi yàlla soxlaa sa jege googu da nga ko bañal yàlla nag moo ëpp fulla ñëpp soo demee ba commencé màgget ne da ngay jege yàlla fekk jege woo ko sa ba ngay nekk sa ndaw yaakaar naa naxoo yàlla sa bopp ngay nax comme ñun nag loolu rek si la ñu woo jaamu yàlla yi fi toog ñëpp incha allah paa bi dana si ñëwaat dana ci yaatal dana yaatal yi may wax ni dana si gën a dugg waaye ci kaw gàttal rek li sëñ Mahi wax rek dëkk bi dafa soxla ay leader waaye nag mu nekk ay leader yoo xamante ni dañuy am teggin su sunu kanamu suñuy wayjur yi waaye tamit mu nekk leader yoo xamante ni dañuy am teggin si suñ kanam ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite si wàllu diina ji ndax lépp rek dañ koy tegg si adab wal ixtiraam ndax adab wal ixtiraam lum la mayul rek du la ko xañ kon nag ñu ngi ndokkeel ñëpp di waxaat rek ahlan bi chahril mawlidi zakarana bil mahtadi asli l usuli sayidi habibina al mubajjali qad kaana xayra mursali qabla al wujudi al awwali walam yakun min jëndali li aslinal muassali di wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf. alhamdulilahi allahuma salli wa sallim ala talaati alxaqi bilxaqi man laa nuura illaa nuurahu wala wujuda illaa wujudahu wa kafa billahi sahidan muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatan tuarifuna biha iyahu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallama comme ni ko sëriñ bi waxee Cheikh Ibrahim Ndiaye mooy awwalil wujudi wujudan mooy njëlbeenu am nga xam ne dëgg-dëgg su toon dara euh, suñu am gi ñun walaw laa am ak yonente bi salallahu alayhi wa ñun duñu am bés yonente bi wax seydna omar aya omar atadri man ana omar xam man may kan mu ne ko ana alladi xuliqa ibnu aadama min xuruful hijaayi ismi mu ne ko man may ki nga xamante ne yàlla bind na ci jëmmi doomi aadama ci sama xarafu jëmm kon su du toon yonente bi sallallahu alayhi ñun duñu am moo tax li Cheikh Baye Ndiaye wax léegi ñun war nañu sant yonente bi sallallahu alayhi wa am nañ gor parce que moom yàlla wax na ko ne xalaqtuka li ajli wa xalaqtu kulli shay'in li ajlika bind naa ñëpp ngir yow waaye yow bind naa la ngir man kon ñun su du dara rek ñu sant yonent bi sallallahu alayhi ngir am gi am moo tax Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne ko waqad rafa al mawla jalla bi dikrihi waqad zayyana al insana xulqa misaaluhu mu ne yàlla mi nga xamante ne moom moo màgga taara leen a jëmmi doomi aadama xarafi jëmm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon ñu ngi ndokkel Mawlana Cheikh Ibrahim di weer bi nga xamante ne jël weer yi bëri nañ waaye jël na weeru yonent bi sallallahu alayhi wa moomale ko boppam te ñun ay moomeelu mawlaana cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu lañ parce que moom wax na ko ne fa malaktuhu zaati wa ruuxi wa nafsaha wa ahli wa ahbaabi wa man bi yatamassaka mu ne jël naa sama zaatu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël naa sama ruuxu ma jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem li nga xamante ne man maa ko moom mooma jox naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xamante ne xam nga sa bopp comme mel ne Maulana Cheikh Ibrahima Ndiaye mi kon li nga am da nga koy jox yonentu parce que Baay moom ñun ay moomeelam nañ kon loolu dëgg-dëgg suñ ko defee mooy comprendre nañ lan mooy mission Maulana Cheikh Ibrahim yal nañ yàlla may mbëggeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu may ñu mbëggeelu Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi ndokkeel suñu waay jur bu baax bii nga xam ne incha allah wax Eh, nga xamante ne dëgg-dëgg wayjur nii lay mel référence la ku nekk bëgg na am wayjur mu mel ne moom nga xamante ne defar sa doom ba wóolu ko bàñes nii la doon def bu muy wóolu Alaaji Abdoulaye di ko jox responsabilité boobu mu ngi dund benn gàmmu sa wax na ko ne yow yaay gàmmu mais mbëggeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam Alaaji Abdoulaye di préparé pour dem ci eh, bayo bi mu fekk baay kaalaw keroog dafa gàmmu bi 10 heures kon waxoon na ne mustaqbalu kulli watanin mooy shabab bi waaye du ndaw ñëpp ndaw ñu am xam-xam ñu am njub dëgg-dëgg ñu ngi lay ndokkeel di la ñaanal yàlla na la yàlla may gudd fanak weer nga xam ne at bu nekk ngay gën a yokk ngay gën a weer bi xamati Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi ndokkeel Cheikh Ibrahim ci thème bii muy wax eh, Mouhamadul Misri dafa bind bàyyi leetar ne ko xal ibnu cheikh ka cheikh ne ndax doomi sëriñ sëriñ la bàyyi mu ne ko wayn attachafu bi awsaafi cheikhi bil ilmi wal adabi ka cheikh su dee mel na ne sëriñ ci njub ak ci xam-xam sëriñ la waaye ñun jànguñu loolu doomi sëriñ rek mooy sëriñ bàyyi lim xam mooy laa ufarriqu bayna abnaa il baarina wala atbaa il baarina bàyyi mu ne xàmmewuma sama doom yu baax ak sama taalibe yu baax yi yan leen yàlla boole ci topp Maulana Cheikh Ibrahim at bu nekk ñuy daje fii nga xam ne dëgg-dëgg fu nekk mën nañ fa fàttalikoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye pem bi nga xam ne waxa ne sara laha sirru madinatin habasaha tanfi bila turaybin nee na mbootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam royaat na ci sama medina gii nga xamante ne ku fi ñëw dëgg-dëgg di nga sentir yonent bi salaay sallama wax na ko sax walaw sawaruni fi lxaqiqa lam yaraw siwa sax sin mahbubin ku jàng aw saafu yonent bi melom ci zahir nga xool photo Mawlana Cheikh Ibrahim nga xamante ne dëgg-dëgg benn jëmm la ñu ngi koy gàttal mënuñu delloo teraanga gi ngir suñu waajur bu baax bi ñu ngi koy jox kàddu gi ànd ak déglu lépp lu wax yàlla na yal nañu may dégg ak topp li ibrahima laaxa badalina zirina jamaaluhu hani an في إجاع محمد فتم لنا البشرى وعمنا وآله لأفضل أرض حل أفضل مرسلين لأفضل يوم فاستبان كماله حب طه يستتاب ليلاه الحبذا ذاك الجناب ليلا إلا الله حب طه يستتاب ليلاه الحبذا ذاك الجناب الله الله إن أرضا ليس فيها الله الله حب طه لا يباب الله الله وليكن فيكم كل قلب الله الله من حواتها نساب الله الله تلاع البدر علينا الله الله ميسانيات الوضاه الله الله وجب الشكر علينا الله الله ميزان لا إله الله هو الله ساري من وصل الغواني الله الله وتاثل ذكر الأغاني الله وارمي بالبيد الحساني الله الله واشلو مختوم داناني الله الله والملاهي والمغاني الله الله من كيران أو مبان الله الله كل سواك سراب الله الله وابغي روحا للمعاني الله الله عينها إن حق حق الله الله تاليا سبع المثاني الله الله بصفات ذاتها قن الله الله رتبة ليس اللسان الله الله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 ñu bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ci biir senegal ñëw fii ngir ñu daje ngir màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu dox nit doxul ci àddina lu ëpp loolu lu la tax a jóg ak foo jëm nga ne damaa jóg pour fu ñuy dajee pour màggal juddu yonent bi looloo ma tax a jóg te falaa jëm loolu amul lu gën a rëy lool ci àddina. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun moo tax yàlla amal ñu bu taxutoon nag moom duñu am bi yàlla naree amal kawan bii dafa amal xaqiqatu muhammadiya moo tax lépp lu am ci kaw suuf yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko xamee ak boo ko xamul loolu moo tax mu am kon yonent boobu wax dëgg yàlla suñ dajee ñu ne dara yëkkatiwuñ ñu lu muy dajee ngir moom ak jël suñuy alal dundule ko ngir moom wax dëgg yàlla nit sàkkut ci àddina lu ëpp iw kon ñu ngi sant yàlla ci loolu di nuyu mbokk yëpp di ñaan yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a teew fii jógee ci ay barab yu fasantikoo kenn ku ne yal na la yàlla jotal yoonant yool yoola ku déplacé ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan leen ko ci seen i jëmm wan leen ko ci seeni njaboot wan leen ko ci seen barke ci lépp lu ngeen di yëngatu yaar ci barke alquran ah lii nag dafa am solo ndax as sabab indatu kullul umma jeune ñoom ñooy kenul bépp nation benn borom xam-xam dafay wax ne wan ma sa ndawi réew ma wax la sa ëllëgi réew kon ndaw dafa am solo su fekkee kay ndaw la loo xam ne dafa pare pour aw yoon wu baax ndax ndaw yii ngay gis kat ëllëg ñooy doon mag ñi kon wax dëgg yàlla bi mu waxee ci waxam boobu léegi Cheikh Ibrahima ne ñëw leen ñu baax man damaa bugg sax ñu sos daayira boo xam ne noonu lañ koy tuddee kaay leen baax duñ ci teg benn condition nag naan melal nii melal nii ñëw déedéet kaay leen rek ñu baax jeex na kaay leen daal ñu baax kaay leen baax jeex na benn condition nag teguñ ko ci ak noo mënta mel rek bul jàpp ne bokkoo yow daal ñëwal boo ñëwee rek di nga baax waaw waaw jeex na wallaay kon nag waaw ñi ngi sant yàlla bu baax di ko santaat wax dëgg yàlla ci bi mu ñu mayee at mee passé ñu fekkee ko toog di fi dundaat ba fekkee atam réew mii te loolu lépp ci mbaax ak suñ borom la ndax am na ñu fi nekkatoon jiitu nañ am na ñu fi bokkatoon ne ñu ngi wéradi kon bu ñu yàlla mayee ñu des fi ànd ak wér ba tala toogaat fii di wax wax dëgg yàlla war nañoo sant yàlla moom kon ñu ngi sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamina te yàlla kan moo ne la in sakartum la asidanakum su ngeen ma santee rek ma dolli leen kon ñu ngi koy sant ci xéewal googu di ñaan yàlla itam mu dolli ñu ñu ngi gërëm ñëpp nag ñu ngi sant ñëpp ci taxawaay bu rafet bii waaye nag yàlla dafa am lu mu wax ci alquran ndax yàlla dafa wax ne wa saari'u ila maxfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqina alladina yunfiquuna fi sarai wa darai wal kaasimina al xaysa wal aafina an innaas wallahu yuhibbul muxsinin kaay leen baax jooj moom laa bëgg a firi aaya boobu daf cee diri sembaanam ndax yàlla daf ne na ngeen njëkkalante na ngeen daw na ngeen kursu jëm ci lan njéggalal yàlla njéggalal yàlla nga xam ne moo gën a yaatu asamaan yi suuf Euh, suuf yi juróom-ñaar ak asamaani yi ñaar ak aljannaam yi nga xam ne itam moo gën a yaatu suufi yi ñaar ak asamaan yi ñaar yooyu yëpp nag ñu xadu ko préparé ko ngir ñan ñi nga xam ne dañooy ragal yàlla ñi ragal yàlla mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko dundale mhm, mhm. fii sabilillahi comme lii ci yoonu yàlla rek def ko rek te yàlla tax ci waxtu jafe-jafe ku nekk xam ne ne ñëpp ngi tawat ci àddina bi naan ci Covid lañ ne àddina bi dafa jafe waaye ñun loolu suñu yoon nekku ci ñun daal danañ def rek ndax fi saraa i wa daraa i la wax ci waxtu xat-xat ak waxtu yi nga xam ne da ngaa nekk ci mbégte yëpp dundaleel sa alal kon ñun dundale alal sartuñ ci ci jamono jafe wala jamono neex dañ koy def rek ngir topp ndigalal yàlla wal kaasimiina al xaysa wal aafina ani naas képp koo xam ne dafa am lu naqari ci sa xol mu ne na ko wan na nga jàmmal nit ñëpp loolu day dellu si li ñu wax rek kaay leen daal ñu baax kon ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax di leen gërëm di leen sant di leen wax ne nag ak ndaw dafa am solo ndax baay dafay wax ne fàggu leen li ngeen di fàggu ci seen ak ndaw su ngeen dooyee mag mu jëriñ leen soo toogee ba doom mag même soo bëggee sax dootoo man kon barkeb dund yëpp mi ci ak ndaw kon ngir yàlla yéen ndaw yi bu leen caaxaanee seen ndaw yi na ngeen ko jeexal ci loo xam ne dafa am njëriñ jeexal leen ko ci liggéey ngir seen àddina jeexal leen ko ci jaamu yàlla ak sàkku ngërëmal borom bi loolu rek am solo ndax àddina bii kat li muy rëy rëy yàlla kum narta liggéeyloo kum narta fay rek du la liggéeyloo suñ borom képp kum nar a fay kum nara a fay rek daf lay liggéeyloo kon ñu ngi leen di ñaax ci loolu yéen ndaw ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne de aljanna mi ngi ci ron ndëgguy waajur yi nangeen fonk seeni waajur na ngeen ormal seen waajur ndax yàlla kat ba mu ne ubudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan rek la ci teg na ngeen wéetal yàlla ak jaamu bu leen ko bokkaaleeg dara tegaatu fa keneen de li mu wax rek mooy na nga rafetal ak topp jëm ci say ñaari waajur tudd fa keneen waajur rek la ci teg kon nga xam ne waajur bu ko yàlla lënkaleeg boppam wax dëgg yàlla waajur lu fooral kon na ngeen fonk seen waajur yi na ngeen ormal seen waajur yi jaam bu ne nag yàllaa gën a ay ci yow yàlla moo gën a ay ci yow bu yàlla wéyee amul ko gën a ay ci yow sa waajur koo cay teg na nga door ko cee teg man de loolu ci laa ne te ci laa leen di digal it ngeen ne te bépp nit bu baax boo xam ne da nekk ci senegal gi xàll aw yoon te bëgg yoonu njub bëgg yoonu baax ci loolu ngay oo nit ñi kon ñu ngi leen di ñaax ci loolu di leen oo ci loolu a ah, wax dëgg yàlla man nag dama damaa mënta wax xam naa wax ji du bari waaye rek di dellu di gërëm rek ngërëm li nag danaa ci ñëpp laa ko boole waaye am na ñoo xam ne nag mënuma leen a ñàkk itam cité muy euh, sëñ sëñ bi xaw ma ne yéen a waxu leen ma turam dégg daaj rek ngeen di wax waaw sëñ Mourtada mii nga xam ne at mu jot ah <laughs> waaw dégg kon baax kon dégg daaj mii di sëñ Mourtada ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy sant ndax lu yàgg dëgg la waaw taalibe sëriñ Saliou ndax sak at moo yéen la ci bés bi ci Medina Baye ci Kaolack gii kon olof yi dañ lu yàgg dëgg la te mosu cee yàq dara mosu cee tànqam lu dara heure bu ngeen soxlaa keneen ku soxla ci bés bii kooko moom na xam ne dana taxawee côté bi ba naan jamono waaye fii lay ñëw kon loolu dafa rëy ñu ngi lay gërëm ci taxawaay boobu ñu ngi lay sant Cerno Ba mi tam ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ndax wax dëgg yàlla nit amul lu may bésam su fekkee am na bésam ak ni jamono bi xatee mu bàyyi lépp dagg ay masaafa yu sori ñëw teewele sa bés bi ba pare joxe fi xam joxe fi alalam wax dëgg yàlla loolu dafa rëy kon mënuñ lu may sant ko kon daal ñi ngi gërëm mbokk yëpp ñi ngi sant ñëpp ñi nga xam ne dañoo ñëw fii tey di ay soxna jàpp ci liggéey bi ak ñi nga xam ne dañoo jógee feneen ñëw gàmmoo si daayira jàpp ci liggéey bi sonn ba lépp éwén ak xale yu góor yeeg ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp leen wax ne daal amuñ seen fay yàlla daal moo am seen fay yal leen yàlla fay bàyyee nañ leen daal yàlla waaye nag ah lii mooy yoonu àddina lii mooy àddina nit daal bu jógee jëm ci lu baax lépp lu mu ca wagasu woon ak lépp lu mu ca sonn rek na ko xeeb gën koo yokk kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant daayira bi nag lancé naa ko bés ni ki tey kaay leen daal ñu baax waaw ñëpp ci lañ boo kaay leen daal ñu baax te ku ñëwit da nga baax waxuñ nag ku nekk fee sax naan may man de nii laa mel boolewuñ ma ci déedéet ñun teguñ benn condition kaay leen daal rek ñu baax rek la ñu wax waaw ku ñëw daal na nga ñëw ñu baax loolu daal lañ oote waaw kon ñu ngi leen di gërëm ah ñu ngi leen di sant ngeen baal ñu àq nag wax ji nag lépp lu ci dëng rek ci ñun la doomu aadama mel noon waaye lu jub rek lañ ci bëgg ñi ngi gërëm ñi ngi sant a ah, ñu ñaanal yàlla ki nga xam ne nag mooy waajuru Cheikh Ibrahima njaay bu jigéen nga xam ne moo fàkk kër gi sos ko lii lépp moom la ca ba muy métti moo ñun ñoo ànd di daanu di jóg ba lii mën a am tey waaye yàlla dogaloon mu fekkee ko waaye loolu yëpp nag dañuy gërëm att yàlla moo taxit fu ñu toog duñ mën a ñàkk jàng faateetul kitaab benn yoon ñetti ixlaas ñaanal ko yàlla ak mboolem nuyu jullit yom fa tëdd kon maa ngi leen di ñaan loolu ñu jàng ko buñ paree bismillaahi rahmaani rahiim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin